asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi ñu ngi am mbégte ci jataay bi nga xam ne ngi koy amal fii ci daaru rahman ci kër seex Sohaybu Mbàkke yàlla suñu borom dolli ay leeram te taasu ci barkeem barke seexul xadim di ñaanal ki nga xam ni moom la fi yàlla teg muy sëriñ seex ahmadou yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ba li bëgg la géyal seexul xadim lépp mu defee ko ni ko bëggee ci barke borom tubaa te ànd kook ay magam ak bark rakam barke sëñ Touba tay ji nak xam ngeen ni grand sourne khassida bi nga xam ni Cheikh Mouhamadul Mountakha mo sàkk ci mouride ñu amal ko ñel ci sëriñ Amsatou serigne sëriñ euh bis bobu bi mu jalle ñi nga xam ne comité bi nga xam ne moo lëkkale mboolem taskatu xibaar yi yeengu ci yoonu mouride dañ ci fassiyene def ab liggéey bo xamni bu am solo la nonu lañ ko defewon ci bis bi tey jii nag dañoo bëgg a siwaat nag kër gu ne ñu dem fa laaj leen bis bi naka lañ ko dunde naka lañ ko taxawee ba ni mu tàmbalee ba ni mu jeexee tey ñoo ngi fii ci kër Serigne Souhaïbou fii ci gamaat bi yaakaar naa ko xam kër Serigne Souhaïbou da nga xam ak kilifa yi nga xam ni euh, teew nañ fi sëñ Mbaye Thiam mii nag bokk ci secrétariat bi ñi nga xam ni ñoo yoroon wàllu mbind mi kër gi tànn ko mu war a leeral li nga xam ni moom lañ dundee woon bis bi kon sëñ Mbaye Thiam bu ma la nuyoo. dama lay laaj rek bis bi ci bopam naka lañ ko wajale fi ci kër sëñ bu kem niñ ko wajale ci penc yëpp yi nek ci dëkk bi ak bir réew mi ak bitim réew kon sëñ bay ñay sëñ Baye Thiam liñ bëgg xam moy bis bi naka lañ ko wajale fi ci kër sëriñ Souhaïbou. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al wa ala xayri xadimihi dil hablil matin wa ala man iqtafa athaarahum ila yawmi ddin mbokk yi ni seetaan wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu sante sun borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant ak a jaajëfal Maulana Cheikhul Khadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel <coughs> ci at bees mi di ñaan sun borom def ko atum naataange xéewal ta rafet nañ ci jot wala sax am nañ ci yaqeen ginaaw boo xamé ne serigne bi ñaan nako ba euh, di ñaanal cheikh mahamadul muntaha mi fi nekkal serigne touba sun borom doli ko ak wër ak ak yag bam àggale yéenam yépp ci barkeb cheikhul khadim ak mbolam jabaru serigne touba gep waye de ci beral ñaan nak borom ëtt bi nga xamné ci lu nekk tay di ki fi nekkal serigne di serigne cheikh ahmadou mbakke ni ko waxe serigne murtala ñaan sun borom yagal ko fi wëral ko mak mbolam jabaru serigne Chouaïbou gep ak di sant yàlla bu baax a baax ni nga ko waxee laaj bu am solo la muy naka lañ taxawoo bis bi nga xam ne moom la Cheikh Mahmadul Muntaxa amoon yëg-yëg ba sant ko mboole murid yëpp bis bi sëñ Muntaxa sëñ Murtada day bis boo xam ne ni ni mu ko daan faral di déggee ci yow bis la bu sëñ Muntaxa woote te kenn xamut lu mu waaye dafay mel ne bi bis bi jàllee xam nañ lu mu ndax joxe na jawaab ji muy bayit wi mu santaane na nañ koy wér dugg suba ak ngoon muy man zanna gayra llaahi yuxni aw yadur fa zaaka fi moy dalu ci yalla rek kon moy bisbi, bi kon sabab bisbi bi du dara lu may dellu ci yalla ak jébal ko ci lepp te ne ci la nga wara ne benen jam bu mu fi yabal moy def lamuy lamuy defet nga bayiko def lamuy def tayow nga ne ci la nga wara ne kon day melni sabab bes bi ci teunk lool rek la ci ci niñ meuna jangate ñun ci suñu jàngatinu taalibe euh, bis bi nag bi ko señ muntaha diglé xam ngeen ne dafa wa señ Yuusu niko ñepp ñëpp xamee ndigal li waye wax ko ne ko sëriñ hamzatu moy sa jeewriñ ci liggey bi ndax mom lu ñuy def ci xaside yi moom lañ ciy dimbali sëriñ Xamsatu kër sëriñ Chouaïbou gii la bokk di ko fi ràññiku ku ñëpp xam kon day mel ne kër sëriñ Chouaïbou taxawaay bu mag a mag a mag am nañ ko ci bis bi kon ba loolu jàllee sëriñ Xamsatu ànd ak magam sëriñ Abdou Samad ñëw ci sëriñ Cheikh Amadou Mbacke mi seen kilifa laaj ko ci ndigal mu jox leen ci ndigal ba noppi boole njabootam ñëpp ne leen nañ topp ci seen ginnaaw ànd ak yéen liggéey bi euh, sëriñ Youssou ginnaaw bu doonee kër sëñ Tuubaa di di di am penc moo xam ne daa daa saf sàpp ci yëf yi ndigal li gën na koo safal ci yëf yi moo tax bi ndigal li rotee ba sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké joxe ndigal dafa woo mboolem ay jëwriñam yëpp ne leen damaa bëgg lii sëñ Muntaxa digle bu leen ci kenn man loolu nag ba mu ko waxee jëwriñ yi ci lañ tàmbalee woote ay daje di ci waxtaan ngir di xool nu nu bëggug bi yéwéne muy bëggug sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké te bëggug sëñ Cheikh Ahmadou mooy bëggug sëriñ Muntaxa euh, di ci jokkoo ak ña nga xam ne ñooy waa kër Serigne Hamzatou ak Hizbut Tarqiyyah ñoom ñi nga xam ne ñooy programme bi waaye ñoom nag ñooy doxal seen programme fii nga xam ne dañuy lëkkaloo ak ñoom duñu réeroo ak ñoom ci dara waaye doxalin wi moom fii ñoom ñoo ko saytu ndax dañoo mujj wax ne suñ mun kat bu sante bu santaane bis bu mel nii murid yëpp la ko sant kenn ku ne am nga ci pas-pas kenn ku ne am nga ci yëg-yëg boo xam ne yow rek ko war a def jàppoon nga ne yow rek boo ko mënoon kon su fekkee daa teg mbir mi ci loxo Hizbut Tarqiyyah wala waa kër Sëñ Amsa Tuut ñun duñ leen ci xaar ci dara dañ leen di woyofal yëf yi ni leen di woyofal mooy dañ leen di bàyyi ñu wéyal seen yëf nañ nañ fañ nekk ñu ñu wéyal fii suñu ñu Sëñ Muntaxa woowoon digal nu ko duñ ci xaar kenn waaye teewul nag ñuy coordonné ñoom nga xam ne duñu réeróo ak ñoom ndax ñoom la Sëñ Muntaxa jox ndigal li loolu bi mu amee def nañ fi ay waxtaan yu baree bare bari ci kër gi jëriñ yëpp daje lañ jiitalit mooy kër sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi nga xam ne mooy moo fi nekkal sëriñ Souhaïbou mm-hmm. njabootam ñoo ci jiitu ndax moo fi nekkal sëriñ Souhaïbou waaye mboolem ko aju ci kër sëriñ Souhaïbou gépp rek ak njabootam mm-hmm. li ko dalee ci sëriñ Abdou Lahad mi topp ci moom mm-hmm. ba ci a i njaboot it noonu mooy njabootu sëriñ lañ te suñuy suñu su suñu ñi ñiñ tollal wàccuwaay ñëpp ci kër gi teewoon nañ ci bés bi mm-hmm. teewoon nañ itam ci jataay yi ñu doon yi ñu <coughs> euh, kon wàccaayoo nañ bi bi waajee it ba ba ba ba ba ba bés bi ba ba waxtaan ba tënk mm-hmm. dañoo sas ay sas yoo xam ne kenn ku nekk mm-hmm. danga nga cay joxe la nga ca war a joxe xëy na loolu du jar tudd waaye sas nañ ci sas yoo xam ne daal bañ ko dajalee lépp lépp lépp lim la bu kawe kawe kawe boo xam ne japon ni ne suko koo mën ci digënté wër mhm. diggante na digënté ab semaine rek wala mhm. juroomi fan loolu ci lañ dundalé bis bi ba ni ko sëriñ bi bëggee mu amé ko nonu ci bir eh, jataay yoy yit doon nañ def ay commission ndax xam nga ab liggéey da laaj nosu mhm. def nañ ay commission yo xam ci lañ sédélé ñu yor liggéey bi yépp nga xamné lu gatt gatt warna mat juroom ñetti commission eh, wala mu jégué warna jégué fukk dal commission yo kenn ku nekk dañ nan la nangam ya ci fété loolu na liggéey bi jàpp nal ba tax ni ko sëriñ bi bëggee won fi ci kër gi mom ame na na ko nonu euh, kon lolou moy li jitu ci wataay bes bi jërëjëf sëñ seigne sëñ Murtada loolu dafa melne lu lu am solo la xam nga xam nga xam nga bes bi nit ñi foge won mbolo mi damay japp ne sa ëpp nako donte dem nañ ba ci muju ñu japp ne mbolo mi dana wañeku waye dama japp ne mbolo mi dafa far ëpp wa nak yalla defal na tawfiq keur seigne Chouaïbou bu mom tel nañ ci bayyi xel lol ci seeni waxtaan ak seeni wataay ba tax mbooloo mi liñ bari bari bettu bettuñu leen bettuñu leen ci ay dal bettuñu leen ci waajtaay ci bu dee dañ leen waroon toggal reer wala bu leen war dañ leen defal ndékki wala lu mu mën a doon bettuñu leen ci ci genn fànn lépp rek fekk nañu prévoir ko ba ba mat sëkk jëwriñ jëwriñ jëwriñ yi nekk ci kër gi ak jëwriñ yi féete Dakar nga xam ne dañoo teel a ñëw ànd ak ñoom liggéey bi loolu waajal nañ ko ba ba mat sëkk bi ñu agsee ci bis bi itam euh, bi li mu digle woon mooy njàngum xasiida moo xam ne daa waxoon ne fu waaye xaj na fa toog mhm. ku xajut nañ ko xajal kër gi dafa feesoon dell penc mi fees dell li wër kër gi lépp fees mhm. lépp ñoo ko doon saytu mhm. euh, fii ñu toog di gamaat bi Serigne Cheikh dafa wax ne na am kuréel goo xam ne day ñëw fii ci gamaat bi dafay jànge yendoo ko nga xam ne neuf heures lañ ko tàmbali wala huit ba jant bi so daanaka waxtu wi ñu doog a ñaan ngir sëñ bi daane woon ci biir te bëgg dégg njàng mi nga xam ne kon fii ñu toog ay kurel fi yendo jang yendo fe jang ñi di durus ba ginnaw takusan mhm. fe ci penc me ñu baas fa baas yu maga maga mag du ben du ñaar baas yu bari la yu maga maga mag mhm. ay kurel yu takku nefa mhm. di jang khasida ñi di durus ñi yekati ñi jang alquran ñu ne lol loolu lol ca lol ba jant bi so kon jëmmi jang mi mom ci bis bi non lañ ko dundale te defena non la ko Cheikh mom du xéewal yi moom itam noonu ndax euh, commission yii ma la wax commission organisation amoon na ci boo xam ne dañoo séddale seen bopp ci diggante ñi ñuy joxe ndox mi ñu joxe boisson bi ñu joxe ndékki yi ñenn ca waañ wa waajal añ yeeg ya ca nga xam ne dara manqué wut ndékki bi bi mu ñëw ñëw na boisson bi bi mu waree ñëw ñëw na ndox mi moom dara manqué wut ba ba bis bi jàllee sax ndox mi des na fi dongay di ko jëfandikoo waaw euh, biñ tollee ci añit maanaam añ yi dafa mujj sax dañuy tibb di di di séddale ci kër yi wër wër dëkk wër wër kii nga xam ne ñëpp ñëpp a xewlu moom. waaw dégg am na. yeneen euh, dal yoo xam ne ñëw nañ fi wut ah, bu baax baax. am na am na am na am na am na euh, yeneen dal yoo xam ne ñëw nañ fi. Mhm. gaare fi bu ma juumut oto mhm. defe naa oto lañ gaare ñu ñu ñu ñu ñu sëfal leen ci juróom-ñaari mbana mhm. yu yu fees dell yu mel na moro mel mhm. ñu yóbbu ci seen lal kon daal xéwal yi xéwal yi kawe na jot moom kay weesu na weesu na jot waaw kawe na jot moom waaw bi <coughs> bis bi jàll na ban taxawaay la kër gi am uh-huh. sëñ bi uh-huh. euh, ban taxawaay la ci am mbooloo mi yooyu yëpp ak ban jàngat ngeen ci def bi bis bi jàllee xam nga bis bi àllarba la woon alxames biñu biñu gonté ci alxames di xatoon na lol ndax moy bisu màggalu seigne Abdul khadir gi waaye dañoo dajawaat fi commission yi yiñ falon nga xamni ño wara saytu liggéey bi kenn ku nek ñu ñew def évaluation xol sa liggéey càmbar ko xol euh, naka lañ ko doxale wa bañ ko càmbaree <coughs> dañu gisé xam nga liggéey mom liggéeyu mbolo dafa xaw jafeta metti am ci 100 yobut waye ñun mom mën nañu wat né am nañ 95 pour mën nañ ko wat bi ñu defee évaluation fii ci bis bi mën nañoo war na am nañ 95 pour cent bi ñuy def évaluation fii ci bis bi nga xam ne nekk nañ fi nekk fi nekk fi nekk fi ba ginnaaw gee sëriñ bi ngi fii ci biir di dégg naka ñu noppi ci liñ doon def dañoo woolul boppam dañoo njëkk yónnee ay xéewal yoo xam ne kër sëriñ Abdou la jóge ci màggal ga ñu xéewlu moo dégg ñu ci lam ñu dégg wax ne euh, lu ci waay fas da ko am loola fasaale nañ ci mu mu ñu jox ñu xéwlu ba noppi ñu wooluñ ca biir mm-hmm. ñu leeral ko liggéey bi ni mu demee lépp mm-hmm. ci njëlbeen ba ci mujj mm-hmm. donte dara ump ko ci woon waaye bi ñu demee ba finalisé ñu leeral ko lépp xolam sedd ca loolu mu bég ca euh, sant ñu ñaanal ñu jox ñu ndigal nag ni lii moom bu mu dakk na wéyati ba lépp ndigal lu sëñ bi digleeti waxuma ndigal lu mu digle moom suñu seex de waaye ndigal lu sëñ Muntaxa digleeti lu mu mën a doon rek day fekk day fekk nosu gi moom am na ak wéyal gi nga xam dañ dañ dañu daal dox rek wuti ko ndax murit moom du wàcc Euh, ndax bu doon wàcc yaakaar naa moom wàcc waaw ah, sant bu baax rek sant bu baax di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool wéral ko lool ba ma àggale yéenam yëpp euh, moom dafa mel ne kàddu yi ko sëñ Abdou Samad Massa wax fii dafay mel ne ci làmmiñu murid yëpp la ko wax ndax ñëpp ci ñëpp ko bëggoon a yonent bi la ci tagg ak di ci julli ci moom ak di ci ak di waaye yem ci julli ci yonent bi wala mu ci tagg yonent bi tur yonent bi bari na mat na ñaar téeméeri tur ak benn ci yi ñu xam ci téere yi bokkut ak yi ñu xamul waaye yi mi yi ci yi ci ne ci téere yi li bari bari bari lim ci jëfandikoo tur muntaxaa ci biir xasida yi moom man gisuma beneen turum ko ci jëfandikoo mujtabaa ngi fi maaxee ngi fi mustapha ngi fi dégg nga lu ne wax tur yu waaye baatu muntaxam ni mu koy jëfandikoo ci biir xasida yi demee na lu yéeme la moo tax ma jàngat wenn bay du nekk ci médaade yi fan yi <coughs> mooy li xayri ntaxaa bil muntaxaa kullu di saqaa wayanxu bihi naxwi saidun wa du tuqaa mooy sama borom defal na ma ci daraja yi yonent bi salaa sallam mi tudd muntaxaa képp ku nar a texee di dana jublu feneen fu dul ci man ahmadu safaan ba nag di ka nar a texe ak ki ki ki wayanxu bi naxwi saidun wa du tuqaa mooy ki ragal yàlla ak ki nar a texe mooy safaanub kee nee na dëgmal na ma waaye ba tey ci daraja yi daraja yi muntaxaa moomu day xam ne mooy solution ni mu jaar lu jiitu da nga xam ne ji kenn ku ko mën ku dul moom amut loolu nag mooy maanaam sëñ Tuubaa léppam dafa dafa ci lépp kon ñu koy ñaanal yàgg ak wér di ñaanal sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké yàgg ak wér di ko ñaanal njabaru Sëñ Tuubaa gépp waaye di ñaanal suñu jëwriñ yi nga xam ne ñoo toog ci suñu wet nag gunge ñu ci liggéey ndax ñun ay ndaw lañ xëy na ñoom ñoo ñu doon liggéeyloo rek di ñu ci gunge waaye ñoom lépp ñoo ko doon def ñuy suñu jëwriñ yi toog ñoom Baye Abdou Diagne ak Baye Falloog Baye Baye Cheikh Samb ñoom ñi suñ Cheikh Sayloum suñ Mamor ñoom ñoo ñu doon liggéeyloo liggéey bi kon euh, ñoom dooleel gu ñu dooleel jàppale gu ñu jàppale sëñ bi jox ñu digal ñu topp euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di jéglu a su fekkee amul lu ñuy laajaat kon mën nañoo wàcce kàddu gi foofu.